li nga xamante ni moom moo di dooleem ci ci réseaux sociaux yi. non réseaux sociaux ñàkkul ko ci média yi. la amoon benn recul par rapport ak communication parce que réseaux sociaux moom seen mbir la. ah mais sociaux yi seetlu yi opposition bi ñi ngi envoyé ñi ngi envoyé réseaux sociaux yi. foofu bëriwuñ. seen extrait ngay gis seen i vidéo ngay gis loolu la leen nit ñi di mere kat dañu ci réseaux sociaux lañ. bëgg gis naa ne sax ñuy acharné par moment ci yenn chroniqueurs yi ak yenn chroniqueuses yi. ñoom opposition bi. ah pour marquer li nga xamante ni moo di seen présence sur yi. ñun tojuñ d' accord Cheikh bi sànq ñi ngi wax ci député ci député yi la ñuy desandi. Mhm. li ñuy wax ni moom loolu benn parenthèse rek la woon bu ñu ubbi woon. Mhm. honorable député Guy Marius Sagna. foofee euh, ca parlement bu CEDEAO xam nga jotoon naa benn vif échange ak ki nga xamante ni moom moo di euh, son homologue ivoirien di Adjaratou Traoré.

waa CEDEAO aussi boo xam ne dañoo tontu ki nga xamante ni moo di Guy Marius Sagna ñoom daal ñu ngi koy araftu ñu ngi koy araftu nee nañu daal les remarques non parlementaires ne seront pas tolérées car elles vont à l'encontre de l'esprit de fraternité et de collaboration au sein de la région de la CEDEAO ñoom daal ñu ngi araftu bu baax ki nga xamante xam nga Guy Marius ginnaaw bu ma ko félicité ci taxawaay foofu ca assemblée ba bu CEDEAO am taxawaay bu mucc ayib boo xam ni jeunesse africaine bi bi nekk ci diaspora bi comme bi nekk ci continent bi yëpp rafetlu nañ ko gëm ni lii lañuy xaar ci député du peuple ci député wu parlement CEDEAO mhm. gii arab bi def na nit ki lim am rek lay joxe gii lim am mooy démocratie lim réew mi mu jóge démocratie moo fi nekk réew mi mu jóge liberté d'expression moo fi am moom la yóbbaale parlement ba bi mu ko yóbbaalee parlement bi dajeek ñoo xam ne démocratie amul seen réew yi liberté d'expression amu fa ñu heurté wante ñaari choc a daje ndax ñële seen réew yi liberté d'expression amu fa da ngay wax di sóor li ngay wax mhm. da ngay wax di sóor lu bari li ngay wax da ngay wax ñu di la menacer ak yu kenn xamul mhm. gii nag moom liberté d'expression ak dem ak niveau démocratie fi mu toll ci réew moom la yóbbu CEDEAO mhm. ñee indi recul démocratique bi am seen réew yi choc am choc boobu rek liñ ciy jàngat mooy CEDEAO bëri na lu ñu war a réformer mhm. ci fonctionnement bi ci texte yi ba CEDEAO nekk CEDEAO wu peuple yi mhm. bañ a nekk CEDEAO wu club de chefs d'État mhm. xam nga CEDEAO liñ njëkk échec mooy bi demee ba li nit ñi xamul mooy mooy borom fetal mooy violer constitution ngir toog ci réew CEDEAO xamal ñu borom plume mooy violer constitution. Mm-hmm. ngir yokk mandat war a ngir toog ci réew. Mm-hmm. bi loolu amee ñu na borom fetal bi bañ a condamné borom plume bi te borom plume bi gën a dangereux. Mm-hmm. ndax souvent impact wala dégâts yi mi am ci société bi sax borom fetal ba du ko fa am. ba am suñu ay frères yu fippu beru fee ca bloc bee di AIS. CEDEAO waroon ci tiira ay leçon defu ko waroon ci jàngat lu bari defu ko. Mm. dafay baax ku mel ni gii Marius Sagna bu toggee ci ci boobu noonu. rappeler mm. leen. Mm. li nga xam ne moo moo jëmbat CEDEAO. Mm-hmm. beneen bi Guy Marius wane na. véritable image ak position du pouvoir du président Diomaye. Mm-hmm. maanaam que ñi leen doon jiin pro France pro CEDEAO des clubs. des chefs d'état lañ. Mhm. wane na dëgg-dëgg position diplomatique gu Sénégal ci domaine yu bëri bëri bëri. Mhm. moo tax ñu ngi koy fi ñu ngi koy félicité. Mhm. di ko encouragé Guy Marius moom bu ñu amoon bu ñu amoon député fukki député rek yu mel ni Guy Marius jafe-jafe yu bëri dana saafaraw. macha allah mais li li Abdoulaye Wilane tamit araftaw CEDEAO ci dëkk yi nga xamante ne war nañu war a mën a dugg ci AES loolu ma rafetlu ko Sénégal da gis ni. malgré suñu conflé interne bu ñu génnee dañuy doon benn solidaire loolu it ma rafetlu ko baax a baax a baax dëgg yàlla peu importe jafe-jafe yi ñoom suñu biir suñ génnee si biti ñu solidaire doon bloc loolu rafetlu naa ko trop macha dëkk yu mu lim nag ma des nañoo bokk ci li nga xamante ni génn ci CEDEAO bokk ci beneen kuréel bi di AES. bon je ne pense lim na Tchad lim na Mauritanie entre autres. bon Tchad bokkul CEDEAO mais Tchad mun na fekkee e parce que Tchad ak pays AES yi dañu xaw a bokk défi sécuritaire mooy. prolongement wu instabilité bi nekk zone des trois frontières dafay ñëw ci lac Tchad bi parce que Tchad ak Niger seen frontière Boko Haram dafa daan sévir bu baax d'ailleurs sax euh, ndem si yàlla si Idriss bi moo ko defoon benn bataay personnelle am dafay. repousser Boko Haram au-delà des frontières du lac et loolu réussiroon na ko d'ailleurs sax ci lañ blessé woon Aboubacar Chakaw moomu di chefu Boko Haram ñu bëri ji wax ni ci lañ ko rey reyewuñ ko mais début daf ko lancé woon défi na ko j'aurai ta peau xam nga armée tchadienne lutte antiterroriste niñ ci mel ci ci Sahel beeg sous région kenn melu ko xam nga lu tax. ni terroristes yi di wala jihadistes yi di fonctionner. noonu la militaire tchadien di fonctionner maanaam dañu aguerri ci combat yi nga xam ne moom la terroriste yi di appliquer ci désert yi ñoom dañ leen ko gën a miin léegi nag yeneen armée yi miinuñu combat yooyu miinuñu terrain yooyu comme armée nigérienne ak yooyu moo tax ñu daan am problème mu faire face boo ko Haram mais l'armée tchadienne dafa maîtriser façon xeex yooyu parce que loolu lañ leen aguerri déjà ñoom début nekkoon nañ ay chef rebelle ngir jot ñoom it ngir def poursuite donc l'armée tchadienne ak fonctionnement wu groupe armé yooyu noonu amul différence moo tax boo leen gisee souvent ay images avant ngay gis seen seen drapeau dëkki mën nga leen jaawaleeg ay rebelle donc ñoom moo tax ñoom ñu amoon expérience bu amoon solo début joué na lu bëri bëri bëri ci liy repousser ko Haram hégémonie bi mu amoon ay 2017 la yaakaar naa 2018 mooy bi kii liiwee rek. mooy bi Boko Haram kidnappé woon trois cent et quelques lycéens yooyu noonu période bu Boko Haram moom mu ngi ci digg expansion début joué na ci lu bëri bëri bëri vraiment. d' accord Cheikh Ousmane. dafa am ab kuréel bu nga xamante ni ñoom ñoo tuddee seen bopp le collectif des victimes de Macky Sall. Mm-hmm. ñoom nag ni ki démb altine euh, ci talaata yi euh, dañoo saisir li nga xamante ni moo di la représentant euh, résident en Afrique de l'Ouest bu centre du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme nee daal dañoo bëgg ñu intervenir d'urgence su ko defee ñu ubbi li nga xamante ni moo di ab enquête ci ay crimes ak yenn exactions yi nga xamante ni jàpp nañu ni am na ci nguuru Macky Sall ngir ñu mën ko teg loxo ci loolee également day fekk si kii di Amé Suzanne mi ni tey Euh, arrêté nañ ko foofee ci sûreté urbaine mu ngi doon wax ci boobu la émission que ni Macky Sall na tànkam Dakar rek mooy Sonko ak Diomaye jàpp nañ ko ndax moom nee na Sonko ak Diomaye sax fas yéene wuñoo respecté li nga xamante ni moom moo di le protocole de campagne <laughs> protocole de campagne man de bu ma xamoon fu ñuy protocole boobu boo ko déggee sa xel ci kan lay dem. <laughs> baal sama xarit. maa man de bu ma xamoon fii victime bu moom moom boo xeefee xeef sax mu ne la protocole ba ba ñuy waxtaan maa ngi ah, toog ak am fit man de bu ma xamoon fu victime mu Macky Sall yi di signé ma dem signé man victime mu Macky Sall laa de. Hmm. Ah, ah man Macky Sall psychologiquement la ma doon torturé di chaque jour ma jàpp ne bu ma xëyee mu jàpp ma man victime mu Macky Sall laa de. torture psychologique la newoon ak man bis bu ne ma jàpp ne tey la may jàpp. baalu sax xel dal woon ci dama naan pare émission naan Penda moom tey la ñuy mujjee gisee ndeysaan. man la dara man la dara dara léeg-léeg ma toog fajar na tey lañ may jël si. Hmm. léeg-léeg guddi na wala ma pare émission surtout ban public na tey moom xam naa su demee naa naafile rek fay sama bor yi te xam ne suba moom Macky daf may jël si man victime psychologique bu Macky Sall laa <laughs> pression boobu Macky Sall man bu ma xamee fu ñuy signé danaa dem signé ci première victime Macky laa bokk danaa dem signé de xam nga Macky Sall ñun dimi yàlla la woon ci ñun. tollu sénégalais yi fu leen kenn musul toll te kenn dootu leen fa toll Macky xëy na bis ndikki ñëw pale ñu escorté ko mu janook sénégalais yi na leen dàq naa élection yi ñu ne ko ndax lan mun leen dàq naa ko di wër datam Macky non Macky Sall kenn yàlla nañu yàlla àtteeg moom rek en tout cas dama gëm ni li xew ci màndaa am lépp dañ ko war a de leeral ko teg ko ci pénc mi loolu moom dama ko gëm. Hmm. et que yi am ci réew mi. d'accord naa ne dañ ko war a leeral sincèrement. Mhm. Mhm. kon daal ànd nga ci euh, boobu la saisine. déggoo man la bu ma xamoon fu ñuy signé damay dem. signé damay dem signé ca mhm. pétition ba. cheikh bi. fan yi nag sorti moom yëwulee ñaay. bu ne yaa ngi génn di wax li nga xamante ni moom moo di sa gis-gis ñu dooree ko ak sorti wu Clédor Sène. Clédor Sène nag génn na def ay révélation euh, taxaw na bu baax a baax ci li nga xamante ni moom moo di gestion wu